boot bukki xaj mbaw la te bëggul ko koo bëggul ku la wax bul génn si écran ñu dañ ci sant yàlla ma léegi damay dugg YouTube maa ngi koy fàttaliku ba série bi commencé ma toog ak euh, Aliou Ndiaye fekk ma gis ay euh, commentaire ay saaga ay lii affaire yooyu euh, si je me jour boobu yaa ngi toog mi leen liirati commentaire yi daf leen déstabiliser ma ne ko DG mu ne ma ne ko pour man nii mu ne maa ma ne ko c'est le contraire daf parce que loolu noonu day tax may xam lu bari fan yee dama liir benn gel mu ne nii daal di ma ko bañee mu mel ni squelette vivant dama ree ba sonn du ma ci mer parce que waxta Jami Gueye waxul Jami Gueye ni ma ko bañee dadaa la wax parce que dadaa dafa sikk dadaa ku dul ñooñ sa da koy bañ man sax damaa bañ dadaa damaa bañ parce que dafa sikk yemul kon loolu maanaam cant la. critique yooyu mënut a ñàkk Sénégalais fii tant que critiqué wu ñu la doo dem Sénégal booy def te wax ñu la dara xamal ni bàyyi ñu la xel seetaan ñu la mais fii ñu lay seetaan mais dañ lay critiqué ñëpp mënuñu àndandoo ne waaw bu ñëpp nee waaru xoolal sa bopp te xam ne li ngay def fee la nekk de. si te ñaar nit ñoo ma ci poussé mi sama réalisateur Chérif Asfati ma koy nuyu ba ma njëkkee ñëw moo ko tonton Touré bi doon def lumière moom mu njëkk a ñëw son premier jour tournage daf na ma Touré daf ma woo surku bi Touré lumière vieux ma ñëw affaire yooyu mu ne ma ne maa fii na def ma ne ko ça va mu ne ma nan nga tudd dëggantaan ma ne ko Jami Guèye mu ne ma est-ce que xam nga ne am nga carrière cinéma ma ne man mi man maa xam cinéma man def cinéma yéen a ma dugal ci ay film mu ne ma si mu ne ma sa casting dafa baax ci cinéma. ce profil dafa bax ci cinéma en plus yaa ngi dégagé kii boo xamante sax xamoko ko Chérif ñoo répété ma la même chose jal sonu ci jal day xeex ak man sax barki Serigne Touba mbake pour di ma defal ay atelier ci cinéma day xeex ak man yaay faal ci loolu de ma ne ko maa ngi Pikine jëlal taxi nga ñëw té day am cours atelier ma ne ko bilaa mu ne ma ñëwal léegi bu ma ma problème té dama ko rouss té joxante cër mo obligé dama jël taxi dem mu defal ma ay cours mais man sax dama def ay jours yoo xamante ne maanaam dina yéem nit ñi vanté wu ma mais dina ne kii defu cinéma bara xam lii lépp ñoom la ñoom ñoo nekk sama ginnaaw man xaw ma dara ci cinéma Chérif Asfaty ak Jal Thiam maa ngi leen di sant maa leen di gërëm ñu may jàppale bu baax billaahi wallaahi